internet Sénégal set ñoo ngi leen di nuyuwaat ah, di leen jaajëfal bu baax a baax di leen wax yéen ci biir émission bi nga xamante ne si moom mooy marché de Fafa marché de Fafa nag buñ ko déggee nee dañuy seet si ñi nga xamante ne si ñooy actualité li nga xamante ne moo xew ci marché yi ak euh, jeunesse bi nga xamante ne si macha allah ñu ngi góorgóorlu di liggéey di créer euh, nee naa la fàllu mbay jamono ji ñu toll nag euh, neexul ba neexul waaye xale yi xeebatuñu benn métier macha allah. voilà parce que léegi dangay xool ki ki jàng ba yor ay diplôme sax tey boo demee ci marché bi yaa ngi ko fay fekk ah, ak lu mën ci liggéey moo xam yanu moo xam jàppale nit ay bagage di ko dugal ci otoom ñi ngi raxas oto ñi ngi jaay kafe ñi ngi def ay yanu ci marché yi bari daal xale yi ñu ngi koy def te wala boo leen dékkee sa micro laaj leen tey ñu ne leen macha allah maa ngi ak sama bac xëy na dama amul liggéey te bëgguma toog moo tax ma jugg di yëngatu nii ba keroog yàlla di indi leneen wax dëgg yàlla xale yi am jom nag nangoo liggéey comme ni ma koy waxee ci biir marché Fafa dama leen seet si laaj leen lan moo leen dugal ci métier bi nga xamante ni si moom la ñuy def parce que gis nañ ni que métier yoo xamante ni si yu bari ñun Sénégal dañu gaaw a fuye <laughs> dañ naan duñ ko def duñ jaay lii dañuy xeeñ wala ah buñ ñu gisee itam ñu naan waaye yow nit kiy jàng ba am diplôme dem di jaay ay géej wala di jaay ay yéet te oleeka loolu lépp métier la boo ci gëm rek ëllëg mu jariñ la kon nañu gëm suñu bopp te bañ a xeeb benn métier mas dala ndaw loo xamante ne si nag macha allah nit ñu bari xam nañ ko ci wàll bi mu nekkee te it euh, macha allah euh, kenn dootu ko présenter li nga xamante ne si moom mooy Sénégal tey nee naal boo duggee ci page internet bi TikTok bi fépp da nga ko fay fekk muy jaay ay produits locaux yoo xamante ne si macha allah awa nekk ndaw moom it jonga ma dee macha allah bu ko neexoon bañ a dugg ci métier mi mais daal ku nekk ak su vie daal léegi dañ koy bàyyi mu nuyoog mbokk internet yi ñu daal di yaatal waxtaan bi ba mu yaat aw maa ngi lay nuyu di la ziar maa ngi lay fay Fafa ça va noo def. alhamdulilah ngi nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp. Mhm. la dalal jàmm ci sama kër. merci <laughs> kontaan franchement ci invitation bi ak li ngeen ñëw seet si ñu. pour ñu yaatal liggéey bi. macha allah kontaan naa ci bu baax a baax. waaw aw tey boo ñu doon wax sa bopp wax ñu say jaar jaar ba nga egsi tey fii nga egsi macha allah tey boo ñu doon présenter sa bopp kan mooy aw waaw awa nag mhm. euh, benn xale la benn ndaw bu mhm. juddoo ci banlieue bi yaroo fi mhm. donc euh, nekk euh, mën du ma ni jàmbaar sax nekk koo xamante ni day daan dooleem. macha allah voilà man nag euh, dama jóge ci dara ba egg fii. Mhm. bi may ju bi may de bi may jóg dama ni damay chaque fois damay wax ni dama dama jóge ci lu dul dara ba ma egg fii ma egg si nii. macha allah donc rek moo tax ma ma ma ñafe ko début. Mhm. comme ni ma koy yàgg di waxee ci sama parcours. début bi mhm. xawoon na metti ndax. commencé woon naa commerce di dem fii ba Mali. donc jóge ci Mali bi di dem Mauritanie. Mhm. jóge ci Mauritanie di jugal ay ginaar di jaay. après ma laal côté jawbe bi. Mhm. yàlla peut-être que fii la ma fii la ma woo daal. Mhm. ci côté bii daal maa ngi ciy gis sama bopp ma taxaw fa nag. waaw franchement ñuy dem. jawbe di toguma la mais bala ñoo ñëw ci produit yi. wax nga léegi jaar nga Mauritanie jaar nga Mali jaar nga feneen ak feneen. yooyu ba nga fa doon jaar yan métier la woon wala. ci lii la woon wala ci yeneen. métier non non lii xam nga. Mhm. bi may doog commencé Mali commencé laa njëkk a dem. donc ñoo ngi maa ngi doon jëlee bus bi stade. des mhm. fois sax dama doon dem ba Kaolack jëlee ko fa. Mhm. tissu la ñu doon laa doon jënd foofu. jasner boobu gañi laa sax moo amoon. gañi temps bu gañi laa. donc ñu doon dem. super vainqueur bi lañ doon jënd. def ko ay cuub ko. nekk ay gañi ñu dagg bu ñu ñëwee jaay. bu ñu ñëwee leble placé. Euh, bu ñu placé. Euh, bu fin jotee ñu jox ñu ñu fay ñu des fois nag ber bi moo doon xaw a metti ci côté boobu noonu. d'accord waaw bu dee Mali bi loolu la woon. Mhm. bu dee Mauritanie bi danga nga ma daan dem di jënd ay plat ay ay ay ay thermos. Mhm. ay glacière mhm. ay tissu mëlfa. parfum portable ak yooyu yëpp dañ ko daan indi di ko jaay bu dee Mauritanie bi mhm. waaw bu dee Mauritanie bi loolu bu dee ginaar aussi dama ko daan dugal fii sama kër yaay mhm. boobu nag yi ma lay wax yëpp presque marié gu ma woon bi mhm. a mais après nag même avant ma marié aussi ci laal laal jawbe bi ma laalee jawbe bi nag daal di léegi viré foofu macha <laughs> allah daal di jëm jawbe rek daa fay taxaw <laughs> commencé yëngu ci ci ci ci yi daal Mm-hmm. mais loolu moom mooy sax ay jaar jaar wala jaaraat nga feneen. waaw ci loolu nag. Mm-hmm. bi ma commencé loolu. Mm-hmm. Euh, dem naa ci ba benn instant ma marié. bi ma marié en 2013 macha allah. Euh, liggéey bi dafa arrêté. Euh, liggéey bi dafa arrêté bëgguma dugg ci ci détails yi mhm. donc jóge woon naa parcelle après ma dem sëy kër Mbay Fall macha allah ci sama goro yu baax sama kër goro yi nekk naa fa presque dix ans après ñu doog a déménagé fii tout récemment xam nga bi nga may woo sax maa ngi naan la dama nekk ci déménagement yu bees mhm. voilà donc liggéey bi arrêté woon na benn presque un an mhm. bi mu fa jógee ma déposé woon doon liggéey Patisen mhm. triage mhm. jaar jaar bi nag des fois duma ci bëgg sax dellu parce que dafay xaw a metti <laughs> waaw euh, triage lañ doon def xam mhm. naa ñu bëri bu ñu seetaan émission bi dinañ xam foofu tam metti woon parce que gerte kemb bi la ñu daan tànn d'accord ñu ngi ñu daan fay kilo bi vingt cinq francs hmm? donc saako de cinquante kilo bi lañ daan amee mille deux cent cinquante ah. waaw ma nekkoon fa ak samay morom nag yu am jom xam nga jigéen ñi dañoo am jom macha allah waaw saako cinquante kilo bi bi. waaw lañ ñu doon fay kilo bi vingt cinq. kilo bi vingt cinq. waaw mais ma nekk ku góor koo xamante ne ku baax la. macha allah sama borom kër daf ma daan wax même bu dee paas ngay liggéeyal demal. Mm. bu weer deewee lu ma am ut bon bu ndaw booleeg sama goro yi jàppale ma aussi samay njëkkee ñu may téyal samay doom may daw di ñëw di daw di ñëw ba jóge foofu de euh, euh, ci biir Patisen boobu sax mm-hmm. defar naa fa beneen liggéey boo xam ne ñu bëri xamuñu ko mu nekkoon euh, mooy usine yi yi fi ñuy defaree jën yeeg yooyu mm. xolli ay crevette boobu ñu ngi ñu doon fay le kilo c'était à cent vingt cinq cent vingt cinq boobu sàcc naa liggéey ko tuuti mais sama borom kër moo ko yëg ak sama yaay sama jëkkër sax dafa ma doon yërëm ba bëggul woon liggéey boobu def naa ko ndax bu ma mhm. daan xëy Patisen bu mhm. fekkente ni euh, foofu jëluñu ma dama daan dem ci usine jën bi mais yàgguma ci woon mhm. bu ma wàccee ma daw ñibbi kër Mbay Fall lu ma am rek ma def ko ci sama bopp sama njaboot macha allah waaw moo ngi noonu foofu loolu doy na waar loolu yéeme na de waaw parcours foofu dafa xaw foofu dafa metti woon nag temps boobu moom metti woon na torop ci man mm. donc du ma ci bëgg di ñëw parce que. ba pare yaa ngi doon jógee Kër Mbay Fall. Kër Mbay Fall di dem di liggéeyi bi nekk euh, côté euh, avant ah ok waaw mhm. waaw côté yaraax bi yaraax merci beaucoup waaw côté boobu la waaw mhm. euh, dund naa ci nag ci temps yooyu jamono yooyu yu difficile mhm. franchement temps yooyu moom dafa metti woon metti woon na parce que liggéey bi ma njëkkoon ngay liggéey di lal xaalis bu bëri di liggéey mu mu muy dox nga jékki-jékki situation yi changé ba ngay dem di xarmat as mais après sant nañu yàlla. ba mhm. yàlla tey indiwaat ñu. Mhm. ñu euh, bi ma amee sama doom bi ma commencé pati seen sax laa toog ba fekk déposé woon naa gondol lu yàgg. Mhm. après fa lañ ma woowee. d'accord ma doon liggéey ak waa gondol mhm. maa ngi nekkoon station Shell bi nekk croisement 22 xam nga ñoom dañ ciy installé gondol yi fa laa nekkoon nekk chef de point mhm. franchement foofu tam dama jóge Patisen ñu woo ma ñëw foofu mhm. ma def stage ñu jël ma chef macha allah voilà peut euh, li ma xaw a li xaw fee xawoon metti la ma yàlla xawee fayee foofu mais ah, maanaam ci gondol bi yaa ngi ci doon gis sa bopp waaw sant yàlla mais dama dawal gondol bi tuuti rek ma reveniraat parce que boo tàmmee liggéeyal sa bopp mënul liggéeyal nit moyen rek mënoo mhm. liggéeyal leen mhm. ma daal di continuer waat nag di daw jawbe nag di ko booleeg liggéey bi foofu mhm. bu ma jógee kër Mbay Fall xëy euh, dem gondol bu ma wàccee dem sama kër yaay dagg sama géej paqueté nekk ci nekk ci nekk ci ba yàlla tey indi lii gondol bi sax foofu arrêté nañ. ndeysaan arrêté nañ ko mais ñi maa ngi jotaat yeneen proposition nag yoo xam ni ñoom ñi ngi may woo. xam nga ñoom bu ñu la xasee ba woo. waaw dama bëgg génne mais. Mm-hmm. Euh, dañuy préférer daal taaxir lu tuuti jéem a concentré wu ci suñu mm-hmm. liggéey. waaw c'est ça mais awa euh, ñu gis nga nekk ci produit yi comme ni nga ko waxee léegi nii. Mm-hmm. Mm-hmm. mu doon loo xamante ne si comme wax naa ko sànq léegi bi may ibbi émission bi. Mm-hmm. mu doon loo xamante ne tey jii ku ci mel ni man exemple bi chaque jour ci man laa koy jël. dëgg la euh, ak euh, tey ku nu bëggoon a jaay loolu lii nañ waxante dëgg dama naan non du ma ko jaay. <laughs> parce que man sangu ba seet laa xam xeeñ parfum. dëgg la gàddu saak cakar cakar cakar te gis nañ ni léegi macha allah. doon na métier bu noble ah. métier boo xam te nee naa fii benn métier bonul métier boo gëm rek njariñ la mm-hmm. te doon na loo xam te si macha allah mm-hmm. gis naa ne xale yi ñu ngi koy liggéey boo xoolee sax ci tiktok bi yow yaakaar naa du du ñàkk nga koy romb gis nañ ni ko nekk na liggéey boo si mm-hmm. a que xale yi ne nii dafa mel dañu ibbi seen ay bët nelawatuñu ne xeebatuñu benn métier voilà melal ni per bu ñu waree sentir jaay suñu géej wala suñu kii dañ koy jaay ndax di nga ciy jot léeg-léeg ay retour yoo xamante ne si wala bi nga ciy soog dugg ñu naan la yow xale bu toll ni yow di jaay ay géej ji leneen nekk fi jaay ne fi commerce ne fi ah. lan nga ci daan dégg. avant loolu nag. Mhm. Euh, loolu moom mënul ñaax ci liggéey. Mhm. franchement parce que man début bi mës naa gis koo xamante ni sax mës na taxaw ak man carrément ne ma yow. sa xel nekkul ci jaay ay sac ay dàll comme ni xale jigéen ñi def vente en mhm. ligne mais yaa ngi ci géej gi marié man. fi ma géej gi jëlee ak fi ma yóbbu xam naa ko. lu mhm. dëgg. su ma gisee ku ciy dem. Mhm. su ma gisee ku dugg ci réseau sociaux wala dana mu dugg ci jaayum géej. Mhm. bu ma la xoolee boo nekkul gaynde dama naan kii da ciy génn. plusieurs fois ànd naa ak ay nit ma yóbbu leen jaww bi man instant bi damay gëj a voyage dama am ñoo xamante ne ñoo may jox parce que dem naa ba xam link bi. xam fi may jaar pour ma mën a am produit. mais gaynde dëgg mooy def liggéey bi. ku dul gaynde boo ci duggee dangay génn parce que yombul. yombul am na ñoo xam ne nag dinañu ñëw. dina ñu yërndu comme li may wax mais après dañuy daw parce que mhm. du liggéey du man rek ma ñëw toog nii présenté wu solo ba rafet ma présenté wu mhm. wala comme li ñuy gis ci TikTok bi foire yi ma taxaw exposé mhm. wala may dem livre ji ci grande surface yi nga gis ma ma gaare oto ñu dugal ci noonu noonu liggéey bi du loolu dafa am leneen lu nekk ci ginnaaw liggéey bi mooy métit bi jaayante waaw gaynde dëgg moo koy liggéey waaw c'est ça wax nga ko ci biir wax gis nañ ni ko aussi tamit yaa ngi koy yaa ngi yaa ngi yaa ngi distribué yëpp fi nga xamante ni si fa la produit war a dem mhm. gis nañ tamit ngay foire yeeg yooyu mhm. noonu yooyu naka lay demee buñ koy organiser ak nan ngay def ba participer ci biir kii yee ah, waaw foire nag mhm. man euh, participer naa foire privée euh, mooy yi nga xam ni dangay ngay fay pour jënd stand pour nga pour nga pour nga présenter mais participer naa ci FIDAK foire internationale yi presque trois ans yi yëpp présenté naa ci ak FIARA Mhm. mooy bu bi Pa Abdou Fall di daw mhm. bi di def autant léegi foire yi euh, métti na méttiwul des fois nga déposé nga am mhm. euh, waa ASEPEC wala aw COSEC ñoom euh, conseil de chargeurs ñu jël la sponsorisé la jàppale la buux la nga dem bu boobaa du metti mais su fekkente ni amoo loolu tu es obligé ngay jënd stand bu ndawee ba ndaw di nga génne benn cinq cent mille pour nga jënd stand yaa xam na ngay bokk stand bi yaa xam nan nga koy defee pour nga pour nga jaay waaw c'est bu dee weekend lay jël mhm. mais boobu tam foire privée la boobu moom dangay ngay jënd stand nga toog jaay mhm. waaw njaay moom foiriste dañu naan ñun dañuy jaay rek mhm. yàlla mooy jaay boo demee da ngay xool rek da ngay teg rek suñu borom mooy jaay d'accord waaw c'est ça mais ci biir foire yi noonu mm, wax nga ko léegi ndax di ngay fay dund léeg-léeg yenn tolof tolof yoo xamante ne si nii ci biir foire yi. Mm-hmm. sant yàlla nag man ci mm. côté boobu. Mm. dañu naan li ma naan man ku may ñaanal nag ma ñaanal yàlla fay ma sama xol. xëy na sama xol la may yàlla di fay ci fu ma dem. Mm-hmm. muy comme jawbe mm-hmm. comme fu mu mënti dem muy foire. muy bouger bu franchement dina metti ci jaayante bi dem jënd bagage. foire nga ñëw bëgg exposer defar say bagage am tolof tolof boo xamante ni. Mhm. marqué na ma ci biir foire noonu mhm. lenn daal dina am. Mhm. des fois ngay jaay dara. ngay jaay gejj keneen ñëw di jaay. Euh, fer wala muy jaay tissu wala muy jaay màdd euh, supposons mu gis la gejj gi dox rek mu daw jëli géej <laughs> bàyyi fa tissu ya waaw dem renforcer géej ah! waaw loolu day am di nga nekk ak nit ci stand ngeen di jaay mu jékki-jékki mu bàyyi fa standam dem uti li ngay jaay ñëw teg ko loolu arrivé na ma d'accord mais sant yàlla. man mhm. dama naan chaque fois ku ma àndal woon la yoonu jaaw bi mhm. wala nga xool li may def ba def ko. man ci laay gën a doxle kon damay bëgg nit ñi di concurrencer ci man ah, ndax ci lay gën a gis sama bopp loolu moom yàlla dimbali na ma ci mm-hmm. mais concurrence bi ci ci ci ci ñoo formé la wala ci ñoo xam te da nga dend ak ñoom place rek wala nga jàkkaarloo ñu gis ni macha allah nit yaa ngi ñëw rek ñu dem jëndi ko waaw am na ci dend place mm-hmm. am na ci koo xam ne ñu bokk stand mais amul problème parce que wërsëgam la mm-hmm. ñëwoon doon jël jël na ko ba mu mat jaay na jaay naa sant yàlla la pour former bi moom man ku ma woowut léegi téléphone mhm. loolu ñu bari mën nañ ma ko seedeel boo ma waxee en gros yooyu man la noonu duma ko mën a def mais boo amee sa fond bu may dem jaw ba ñu ànd wala ma teg la ci yoon waaw d'accord aw ma ci problème kon di ngay faral di di di comme ça benn fafa bu ñëwoon ni la ah awa dama dugg ci njaay affaire yooyu noonu chaque jour may teg ci yoon chaque jour ci laa dëkk wallahi lazim aw ma ci eh, xaar ma yàlla ku ma wax ma ne la lii ku ma wax mhm. ma ne lii boo ci dugalee sa xaalis nga doon gaynde dëgg danga ciy génn man affaire yi ñëpp ci xaj kon daal bokkoo ci ñi nga xamante ne sii dañuy commerce am ku bëgg a ñëw pour commerce ak yooyu ñu lay siis wala ñu naan la non non non ku ci dugg ah bari nañ si def ah am na ñoo xam dañuy jaay muy dox fa wenn fa faa bëgg a def ko mun la bu lu bu ci dugg du dox sa xaalis day diig affaire yooyu waa léegi après bu ci duggee gën laa doxle nag doo rus moom ma jaaxal gëmal yàlla awa même ci foire yi saa yu ma saa yu ma àndee ak nit mhm. yóbbu la jawbe mhm. wala ma wan la yoon teg la yoon nga dem mhm. ci laay ëpp samay client ci la ñuy gën a ñëw macha allah yàlla moo ma defal loolu. Mhm. moo tax damay yàqamti ku ne ma wan ma yoon wala nga wax ma ma wax la. maa ngi nii jeex na saa yoo paree. jàppal ni man ngay former bii di ñëw incha allah rabi. <laughs> mais awa ci ci ci biir kii mhm. euh, foire yi comme ni nga ko waxee léegi. Ah. léeg-léeg nga dendeeg ku soof ku mel ni Fafa peut-être kuy jaay tissu wala kuy jaay lekk naan kii moom war ma woon dendeeg moom parce que yii daal day xeeñ day yàq sama kii affaire yooyu ndax. dama cee dund yooyu mais dama lay toggal mbaxal togg ceeb keccax bu neex ñu ñëw añ. wuy ça ñu añ jënd jus def suñuy attaay rey nga ko xam nga nit ki bu lay woo ci dara boo ko ci fekk see rek yow la neex mhm. ñaari ñaari nit ñooy xuloo waaye defal tekk ba am li nga bëgg mhm. foire yàggul marché yàggul foire privé yàggul mhm. foo mënti dem loo fay mënti def yàggul dama naan rek man naa naxante ba li ma fi indi mooy as tuut jaay ma ma jaay la naa ko def te gaaw ñibbi ndax dañ maa yónni yaa xamte ma nag franchement waaw c'est ça <laughs> TikTok bi naka ngay dundee ak sa ay cliente waaw TikTok bi nag maa ngi sant yàlla ndax euh, man noonu laa mel dama xaw a ragal réseaux sociaux. Mhm. boo gisee pour ma solo dugal ko ci sax problème la bu ma dugalee rek te parce que boobu maa ngi wane lekk yi may jaay wala dara. Mhm. man noonu laay def. Mhm. donc début dañ ma doon wax même ci Facebook dañ ma doon wax ubbil ubbil ubbil ma yéex a ubbi. donc bi ma ubbee ma gis gars yi di ñëw. nga ne xaar TikTok bi tam ñu ne ma ubbil ubbil ubbil. après bi ma ubbee macha allah. franchement macha TikTok bi moom maa ngi sant yàlla bu baax gars yi ñu ngi ciy jënd ñu ngi may sonal nag. Mm-hmm. waaw defal live xam nga nit ñi. ñu ngi def live xam nga mais mënta ñàkk si njaay mi la bokk yooyu lañu bëgg. <laughs> ci njaay mi la bokk wax na dëgg tout ku tudd Khady Diop ku dëkk fii. Mm-hmm. daf ma ni dañu wane avant ku ñu wane ci ci affaire kii nga jëloon mu naan ma xam nga génn leen génn rëkkante. xam nga lan man ko man xaw ma loolu. <laughs> bi ma ñibbisee ci ëllëg sa rek nga woo ma ne ma dañ bëgg def émission ma gis ko ma ne ko yow xanaa yaa ma boole ak ñooñu. wala ndeysaan fekk dafa tombé. waaw day tombé ba mm-hmm. gars yi ñooy bëgg nga ñooy bëgg nga dem. en avant waaw ñooy bëgg waaw maa ngi leen di woo nag ci massivement ci TikTok bi. parce que mm-hmm. bëgg naa commencer live bientôt. Mm-hmm. ñu abonné massivement affaire yooyu posté ma tuuti daal. macha allah gis nga. <laughs> mais awa ndax yaa ngi yaa ngi gouvernement bi laa ko mën a tuddee xaw ma lan laa ko mën a tuddee ndax ñu ngi lay woo. di la jàppale wala di la wax sa liggéey affaire yooyu noonu et gouvernement comme comme lan. comme ñi nga xamante ne si ñoom ñoo yor wàllu kii bi. Euh, ay financement ay ak voilà affaire yooyu noonu. mën nag franchement benn kenn laa am. Mhm. ku may liggéeyal. ñu bokk liggéey bi te ñoo ngi teg euh, benn projet boo xamante ni. Mhm. Euh, benn entreprise la bu mu ubbi bu bees muy sama borom kër. macha allah la fabrique la ko tuddee. donc dañuy préparer comme jus yi ngeen naan. Mhm. ñu ngi dox ci ay buy ay bisaab. Eh. beneen loo xamante ni bokkul ak halieutique la. d'accord voilà leneen lu ñuy teg à part mhm. gisuma keneen. parce que financement yi moom li may wax dama ne du ma ci dem ba du ma ci waxati sax. Ah, parce que saa yu ma invité. Mhm. ma wax ci. Mhm. da ngay déposer. Mhm. ñu tegal la ban. nga toog di xaar waaw jëmale bu ngay woote ñu ne la noo dugal nañ dina ñu ci ñëw dinañu ci ñëw moo ngi noonu. donc man damay dem ak samay moyens yu ndaw. Mhm. di di di góor góorgóorlu yàlla lu mu indi rek ñu def noonu. waaw d'accord mais kenn mësu la kenn mësu la financé li ngay jaay nii kenn joxu la financement. pour nga def financement début bi début bi laa doon dem banque. sama mhm. première prêt cent mille francs la. macha allah. waaw mais après dama dem ba dama ba ma arrêté banque tout récemment même pas deux semaines. Mhm. am na ku nekk ku fi naa ku ma woo. ku ma gis ci benn kii groupe euh, mu woo ma ne ma boo bëggee financement nga ñëw après ma laaj ko mu wax ma intérêt yooyu bi ma waxtaanee sama borom kër daf ma ni bu ko def. Mhm. après ma bàyyiwaat parce que man sax financement ku ci bëgg dugg dee fois dama naan la wóorul. Mm. banque yi demal ak sa taaba taaba ba bu weer deewee sa xel dal. Mhm. du dëgg. waaw loolu moom. mësuma jot financement. mais su ma 100000 euh, yooyu nga xamante ni si moom nga leboon banque. moom nga commencé sa commerce wala. sa commerce bi moo jiitu 100000 yi. si moom laa commencé woon moom commencé commerce bi. moom laa commencé woon. Mhm. mais début bi bi ma doon dem lu ci ëpp dama xawoon daanu. Mhm. ci côté Mali bi dama xawoon daanu lu bëri. Mhm. déggoo ma ne la même avant ma bi ma marié juste dama arrêté. parce que boobu xaalis bi diig na. yu ci bëri dem na. Euh, bor yi surtout. waaw waaw bor yi waaw. Eh, am na ñoo xamante ñoo fi bari. waaw am na leb rek doo leen mën a fayeeku. doo si mën dara waaw loolu doo si mën dara la ñu bi dafay metti xam nga après di nga dem ba di nga am. li ma naan man boo ma lebee danga may fay. Mhm. parce que liggéey bi dafa metti dafa metti boo ma lebee su ma la dégloo. Mhm. woowoo ma dama lay woo ne la sama xaalis laa soxla. parce que tamit lii ak lii. Mhm. su ma wóoree ni yow mi soo ma lebee doo ma fay du ma la lebal. d'accord su ma xamee sa jikko. Mhm. ma for tuuti ci sa jikko. Mhm. mu wóor ma ni soo ma lebee doo doo ma fay. Mhm. wala dama ciy topp après ñu ñaawoo. du ma la lebal bu ko defee du ñu ñaawoo. d'accord waaw man noonu laa mel waaw. mais wax nga léegi say biir wax ni que euh, yaa ngi bëgg cee bëgg a boole li nga xam te ne si moom fabrique moo ko def mooy entreprise bu bees bi sama jëkkër teg. macha allah donc boobu ci la ñuy dox ci buy. Mhm. fekk na man sax doon naa def buy ak ay bisaab ak mhm, yooyu. Mhm. donc comme que vu que dañuy jaay buy di jaay bisaab. donc ñu ne pourquoi pas mënuñu ko transformer après ñu defar ci ay jus. d'accord yoo xamante ni. dañ koy def muy sedd ñu koy livrer. Euh, ku am cérémonie ñu livre la affaire yooyu ci loolu daal lañu nekk mais lii moom. Euh, suñu halieutique bi moom. Mhm. moom moom c'est déjà installé. Mhm. waaw boobu nag dañu ci nekk di pro di di ko programme incha allah waaw léegi nag si ci ñoom mii la ñuy jublu. nga wax ñu détails yi. Mhm. wax ñu consommation bi. lu muy diire. est-ce que niñ ko defee ci sachet yi nii day gaaw a yàqu wala du gaaw a yàqu comprendre nga. ñu jógee ñu njëkkee ci géej bër gi rek. gis nga géej mais géej gi dafa mel ni fi mu ne nii géej gu bees la gu tooy la. Euh, lii ndax ndax ndax du gaaw a yàqu awa. donc gis nga géeju beurre bi. Mhm. ñun suñuy produit mhm. dañ koy certifié. d'accord donc ñun dañuy am euh, autorisation jaay ko parce que dañuy am autorisation Fra. Mhm. dañuy am suñu papier NINEA de commerce carte commerçant import export et tout. d'accord donc dañuy dañuy dañuy autoriser ñu jaay suñuy bagage dañ koy yóbbu euh, Fra. fi nga xamante ne képp kuy jaay lekk mhm. ci àdduna normalement war nga yóbbu say sa sa lekk ñu mm-hmm. ñu oh. dugal ko analyser ko mhm. ñu am nañ suñu dix produits yoo xamante ne dañ ko yóbbu mhm. waa Fra autoriser ñu analyser ko ba pare autoriser ñu pour ñu jaay ko. macha allah kon ñun amuñu droit def erreur. non parce que ñu ngi def ci euh, grande surface yi. Mhm. te grande surface yi boo amul autorisation Fra doo fa dugg. doo fa dugg voilà. waaw parce que gis naa sax euh, su ma juumulee benn vidéo ma photo boo xam te ne yaa ngi leen di. livré maa ngi livré mhm. foofu. xam nga xam nga day bëgg preuve à l'appui. wax rek mhm. da ngay dem ba foofu photo. mais naka nga def ba ba ba ba lëkkaloo ñoom bay liggéey ak ñoom. di leen di liggéey bi na set rek. d'accord kese. grande surface yi méttiwuñu am na ñoo xamante ni nag am na foo xamante ni mhm. déposé naa ci grande surface yi fii ci Sénégal mais des mhm. dañ lay tànc te daf may wóor ni ñooñu li ñu leen di fournir doyul mhm. mos naa ko wax ci benn émission dem naa demaat xool ni li ñu leen di fournir doyul te li ñu leen di fournir ak man li may def c'est aussi diamétralement mais foofu dañ lay tànc mais comme fi ma nekk di livrer moom na set d'accord xam nga nit ñi dofuñu indil leen lu set ñu téye ko ñu xool boo leen ko joxee nga continuer noonu. Mhm. dañuy dem ak yow di la gën a commander. d'accord soo bàyyee sa loxo dañu lay bàyyi. ok c'est ça loolu mais euh, comme ni mu nekkee ci sa sebe nii. mën mhm, mhm. euh, na diire ñaata weer ñaata semaine ba nga xam du gaaw a yàqu wala dara. consommation xam nga tey. Euh, lépp luy produit halieutique. boo ko jëlee am nga ñaari façon pour nga def ko comme grande surface yi may wax dañ koy dañ koy wowal dañ koy def séchage ba mu wow. ñu def ko paquet daf étiquetage yeeg yëpp parce naa dugg foofu awa. voilà ñoom boo duggee ci seen ay boutique yooyu dafay wow. day wow voilà mais tey dama gis nga teg bu tooy xepp bu tooy bu bees xam nga lii tey dama ko exposé pour. Mm. donc day dem léegi. te luñ fi jógee léegi dañ koy livré. macha allah donc même bu ma ko jëloon. stocké ko ci carton yi. daf mm-hmm. may wóor ni deux ou trois jours day dem. donc du mën a yàqu fii mhm. mais grande surface yi boo leen di jox la nga leen di jox quantité bu bëri mhm. lu tooy du leen arrangé lépp lu tooy ñoom day dem frais mhm. léegi dañ lay proposer ñoom ne boo ñuy jaay da koy da nga koy séchage nga wowal nga def ci seen séché nga jox leen ñu livrer bu fa amee un mois tam day jar macha allah comprendre nga selon ñoom ni seen clientèle ni muy demee donc ñoom ak ñun li ñuy jaayee ni bokkul moo tax prix yi day différent parce que boo jëlee kilo géeju beurre nga ko day dem libre moo tax ñoom seen prix di gën a cher tuuti que ñun. waaw ah, d'accord voilà parce que ñun mën na. voilà waaw parce que nii nii nii macha allah mais bu tooyee day wàcc. tey gis nga 500 grammes bi boo ko jëloon. Mhm. nga nga nga wowal ko. Mhm. day dem ay 300 grammes. Hmm? wala moins de trois cent grammes. parce que ko wool trois jours. waaw di nga ko séchage def ko trois jours ba mu wow comme. pour même tey jii soo amoon euh, commande boo xam ne mu ngi dem extérieur. mel ni Europe ak feneen ak feneen. ñoom gejj bu bu tooy bi tamit nga leen di ambaleel. wala bu dee Europe la yii laa leen di jaay. Ah, ñoom waa Europe yi ñoom dañuy bëgg bu fekkente ne lu wow dafay am. waaw waaw ñu congelé ba mu glacé ñoom dañ fay am. si ñoom dañu naan ma awa. mer géej dañoo bëgg nga jaayee ñu ko nii mm-hmm. ma lëmas ci kayit mm-hmm. ama am samay feem nag ku ah, nekk <laughs> defar ko emballé ko scotché ko ba nga xam ne bu yëg ba ba mu yegg ci ñoom conservation bi dafay baax macha allah produit frais bi nii laa leen di jaayee ñu ne Europe ñëpp waaw waaw ñu nekk Europe mm-hmm. surtout Paris bi nga xam ne Château Rouge am na GP bu fay dem kooku moom tout le temps nii la koy jaayee emballé ko defaral ko mu dem d'accord waaw c'est ça awa même ci ci ci ci li nga xam moom mooy tege-dege bi léeg-léeg da ngay gis ñu jaay nit tege-dege boo xamante ni si nii dafay weex mhm. loolu yéen yéen ñi nga xam te ne yéen a jaay tege dege yeeg affaire xam nga tege dege loolu lay demee voilà xam nga tege dege bi mhm. euh, difficile mhm. parce que tey mën nga jënd tege dege sol ko ci say pot jaay ko mu xajam comme mën nga jënd tege dege sol ko ci say pot jaay ko du xajam ça dépend ci fournisseur bi lay bi lay jaay waaw mais am na nu muy demee tam nga jënd sa gerte kemb. nga mhm. joxe ñu walal la. nga mhm. taxaw ñu ñu saafal la ñu walal la ba mu set. Mhm. waaw boobu tamit loolu tam bu fekkente ne nit ki da koy def. Euh, ci la cet gi di gën a di gën a di ngay yow li ngay gis mu wóor la ni lii yow yaa koy liggéey assisté nañ ko bi ñu koy liggéey. loolu ci sa la sa xel di gën a dalee. d'accord waaw foofu la sa xel di gën a dalee. foofu la sa xel di gën a dalee. ok ci ci xaw ma nuñ koy waxatee. géej gi yeeg yooyu géej kese. Mhm. parce que gis naa fii su ma juumalee ay yéen bu tooy. Mhm. ay crevette. Mhm. ay ay ay ay tuufa. ah ay ñebbe macha allah. yii nii yëpp da am ay commande am. yu yuy dem yii yëpp dañuy am ay commande am. waaw parce que gis nga ñebbe bi. waaw ñebbe bu set la. bënnul dafa rafet. yaa fi bënnul. donc dañuy am ñebbe bu ñuul ñebbe bu xonk ñebbe bu weex bi sax dafa jeex nii buy bi mi ngi noonu comprendre bisaab. Mhm. voilà buy bu set. Mhm. Euh, macha allah bisaab bu weex bisaab bu xonk bisaab vimto ak diw ñor yeeg diw tiir yi. d'accord donc produit yi moom. Mhm. Euh, li fi nekk sax. am na lu manqué géej gi yes baa ngi nii. parce que am nañ confirmé. bu bu bu bu tooy. bu tooy bu bees ak bu wow. bu dee Europe nag ñoom lépp lu ma leen di jaay muy frais. confirmé du ci bokk. d'accord confirmé ki ma koy jaay muy dem Europe dama naan la. boo ko yóbboo day yàqu ndax dama ci mës a am uh, ku moom ci jaayoon ñu naan ma def ci kaaneeg def ci yooyu yëpp mais def naa ko ci mais dafa yàqu dama ci foofu laa bëggoon a ñëw awa danga xaw ma ne da nga sànq sàqami ah, sama laaj ci xaw ma ni koy waxee noonu ah. des fois ci ci ci nga xam ne si yaa leen di même ci nekk Sénégal ah mm-hmm. que du bari dañ naan jaaykat yi liñ lay wan ci buñ lay jaay ak buñ lay livré du doon benn ndax yooyu mës nga ko see dund démb dafa am ku ma jaay wallahi lazim mm-hmm. biñ ko livre ba ñëw dafa ma woo di ma ñaanal comme dama ko may man dama naan la bu livreur bi ñëwee mhm. vérifier balaa nga ko fay sa xaalis bu la neexee loo ci gisul dellool loo ci oh. gisul lu la neexul dellool man loolu laa engagé nag jeex na kon yow bokkoo ci ñi ñi ñi wane. Eh. non non wala yónnee ma wéef bi wala lii. dama ah. naan la téyel bu la neexee xaalis ba livre bi di ñëw na taxaw bu la neexee vérifier ba pare. ba pare nga soog a fay jeex na loolu laa lay wax. ndax mas nga ci am ay problème tamit ci nga xam te ne si ñoom ñooy dem Europe. ci GP e yeeg yooyu noonu Europe mooy boobu mhm. confirmé ma lay wax. Mhm. dafa dem ñu ne ma da nga ciy def kaani du yàqu ma def ci yëpp yàquwul. tout récemment nag confi bu dee confirmé bu wow bi doo am problème. Mhm. léegi li ma mujj di proposé client yi mooy. ngay ñibbi da koy congeler man mën naa la ko congeler ba jour bi ngay dem. Mhm. comme tey ñu ne la vingt heures war na la fekk aéroport. Mhm. ma congeler la ko ba dix sept heures dix huit mhm. ma jël sama papier aluminium ak yëpp emballé ko. paqueté ko scotché ko bu ñëwee da koy defar sa congélateur prêt à partir rek nga jël def sa valise dem. bu dee vol direct la bu yeggee da ngay dindi rek def sa frigo. defaat sa frigo mais bu fekkee da nga koy jox GP da sonal GP bi. Mhm. sonal ma sonal sa bopp parce que day yàqu. man dama bëgg jaay ba dama wax nit li am. dama naan la boo ko defee yi dañuy def par livre ñamit suñu. eggee bu ñu demee ba pare GP yi des fois duñ def vol direct. Mhm. mën nañ jaar dëkk bi mhm. jaar fii affaire yooyu. looloo tax mais comme bu tooy bi daal. lépp moom mën naa koo jaay mu benn benn benn kii boo xamante ni si nii ci nga jot a livre si fii nii da fii nii jaay naa sax même même sama mbokk la je pense mu ne ma géej bi dafa sax hmm? waaw mais mënul ñàkk ci liggéey waaw parce que loolu day nekk ci géej hmm. donc mënul ñàkk ci liggéey pour dire vrai hmm. waaw après ma ne ko sànni ko mu sànni ko mu yónnee waat ko et pourtant ci li mu ko jox wax mu sànni ko ci loolu laa ko jaayaat macha allah mais distance ba euh, cag-cag bi demee ak ñoom nan lañ ko conserver bi produit bi excès tak parce que tey bu ñu la livrer ay produits halieutiques mhm. mu ñëw rek nga teg mbuus mi ba guddi nga ñëw tekki ko mën nga fekk leneen waaw mais ñun bu ñu ko conserver ba mu baax ba mu mhm. jóge ci ñun di dem ci GP bi mhm. di euh, euh, autant pour moi di dem ci cat-cat bi ba ba mu yegg sa kër ba ba nga koy jot donc boo ko jëlee rek yow def ko au frais wala nga jël ko booy weer weer yaa xam du def dara d'accord franchement waaw waaw Mhm. léegi euh, ba tey ci produit mhm. gis naa fi bisaab bu xonk mhm. gis naa fi tamit bisaab booboo xamante ni si bisaab bu bu weex la waaw waaw yii tamit yëpp da gars yi dañ koy soxla waaw bisaab bu xonk bi comme bisaab bu weex bi dañ la koy laaj fu nekk nag parce que ñun même euh, bu dul Dakar dañuy jaay am naa ci client yoo xamante ni ba Mbour sama maman euh, madame Fall maa ngi koy nuyu de passage moom dama naan man kii est-ce que Mbour am na géej <laughs> parce que day def pack halieutique am uh-huh. nga yónnee ko ko am na ci ñoo xamante ne ba Tamba waaw te ba pare da nga euh, oto horaire bi nekk Fadia bu ma ko uh-huh. joxee bagage yi da bu demee ba Tamba ñooñu dañuy paas jógewaat ci biir Tamba ñëw jël produit yu yóbbuwaat macha allah ci biir dëkk ba uh-huh. donc ku ci nekk Euh, te ñi may commandé ñëpp da nga gis koo xam ne day commandé bisaab day am foofu day commandé mais des fois yow sa qualité liggéey. d'accord moom moo leen di gën a di ñëw franchement moom macha allah mais awa bala ñoo tàggatoo. Mhm. Euh, bagage yi ku ne mhm. xam na ni nawet dugg na. waaw affaire yi fan la toll. waaw dafay cher na wala <laughs> wala wàññeeku dafay metti te pour nga gis ko problème lay doon. d'accord parce que euh, beurre bi ni ngi jóge Bissau. war a ñëw jawbe des fois seen yoon yi ak taw bi day xaw a day xaw a day xaw a metti mm-hmm. Mm-hmm. comprendre nga mm-hmm. euh, di instant bii nii rek dafa dafa xaw a manqué da ngay jël commande ne nit ki bu subaa dinaa la livrer ngay gaawantu di xool ndax sa bagage dina egsi waaw wala déet waaw mi ngi noonu mais ñu ngi sant yàlla daal ba ñun euh, franchement mhm. clientèle bi ñuy am yëpp ñu ngi leen di satisfaire di ñaan yàlla mu yokk waaw bu baax a baax macha allah c'est ça mhm. bala ñoo tàggatoo projet yi lan la ah projet yi mooy comme li ma wax rek la fabrique bi ma teg léegi ñuy waajal dugg ci beneen euh, entreprise boo xamante ni dañuy defar yeneen jus locaux ak yeneen mhm. donc di ñaan yàlla rek ñu Euh, gars yi gën a ñëw daal. Ah. di wax ni TikTok bi bu ñu mënee aw ne sur <laughs> suñu allié tik mère ji xam nga. Ah. des fois nit woo ma sax ne ma mère géej ma ne nga wax ba pare su ma enregistré si tur wala dara nga gis ma yow doo mère ma ne la waa mais gis nga. <laughs> donc waaw mi ngi noonu di wax ne gars yi nañu gën a ñëw. bu mhm. fekkente ni mais awa man man man man dafa mel ni liggéey bi nii dafa dafa dafa bari. ñëw parce gis naa ni ko macha allah. xale yi daa ngi ci daw daw daw daal di ñëw man daal dafa mel ni am na secret daal ah, Fallou Mbaye ndax du dem nag commencé nag gis nga ci yàlla gis nga ci géej géej géej di xale yi jël nañ ko daa mel ni secret bi daal fii la nekk da ah, xaalis la nekk gis nga mais ñi ci dugg ñëpp sant yàlla mhm. ñi ñëw dugg ñëpp mhm. ku ci dugg te gëm sa bopp li ma lay wax mhm. boo gëmee sa bopp bu baax dañ ciy génn macha allah bul doon bul doon yaafus rek yaafus du ko liggéey kon gaynde dëgg nangoo taq kookoo koy liggéey. benn awa jeex na jeex na tàggatoo gis nga. <laughs> kontaan naa franchement kontaan naa ci émission bi kontaan naa bu baax a baax maa ngi remercier sama client yëpp nag mhm. cat ba cat mhm. euh, di remercier samay mbokk samay mbokki jëkkër di remercier sama borom kër nag ah moom nag moo jàppale nag franchement mention spécial mention ah, di ko di ko gërëm di ko sant Kamara Yile Kamara euh, Yile si njili baa nji gara ah. gis nga <laughs> <laughs> yàlla na ma yàlla bàyyi ak yow ah kontaan naa daal kontaan naa ci ñëpp merci beaucoup jërë ngeen jëf. merci merci beaucoup jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax ci sees bi ak dalal bi nga xamante ne si wax dëgg yàlla dalal nga ñu ko. Euh, mu nekk euh, émission boo xamante ne si comme ni ma la ko waxee woon. Mm-hmm. Euh, marché dafa faa nag dañu bëgg génne femme battante yi femme brave yi comme ni ma la ko waxee sànq ñi nga xamante ne xeebuñu benn métier. Mm-hmm. parce que yaakaar naa du du jamono jooju sax lañ toll. Mm-hmm. jamono ji gis na ne xale yi ci TikTok bi boo duggee macha allah lépp la ñuy jaay. xale yaa ngi jaay lépp lépp lépp lépp macha allah di leen wax ñu gën a góorgóorlu